may pourquoi pas Idriss Seck xamal bokkoon ngeen bokk lang. non wax naa leen wax moom ngeen liggéey. wax na leen critères yi wax naa leen critères yi. pourquoi pas Idriss Seck. Lazou ay xam nga xuloo xam nga xam nga nettali xuloo day indi xuloo am na xam nga defoon naa fi loo xam ne tàmm ma ko def. te seen kër gii la woon. pourquoi xam nga moom fii la ñëwoon. wax ba tudd ma. bi ma ñëwaatee fii laa ko waxee waat ba tudd ko yéen a ngi rappelé wu. mais loolu jeex na parce que en 2007. bi may voté Il dit, guma sax ci c'était le meilleur profil pour être président. aujourd'hui en 2012 ma c'est le meilleur profil pour être président. en 2024. je pense que ce n'est pas le meilleur profil pour être président. pourquoi c'est tellement simple. pourquoi parce qu'il y a d'autres meilleurs profils pour moi, Diomaye et le projet PASTEF sont mieux habilités à diriger le Sénégal xam nga man samay affaire dafa leer ne ci nëbbatuwuma ci. qu'est-ce qui a changé entre 2012 et 2024. ben parce que 2012 soit plus le meilleur profil. parce que 2012 et 2024 c'est pas la même chose. non non qu'est-ce qui a changé. parce que parce que ki di projet, incarner sama projet si vous mën un détail Qui di gën incarner mon projet. c'est le projet de PASTEF c'est le projet de Diomaye président Nous, avons incarné ce que li nga politique mais Idriss Seck nee demu ci plateau télévision suñu confrères c'est candidat c'est un amateur lolo wax mënul affaire. xam nga mu mais Alassane tey nga ma bañ a dugal Idriss non loolu la wax non dama lay expliquer. <laughs> Idriss nee na nguur expérience moo koy moo koy doxal. wa xam nga man du taf yëngal. waaw léegi am na rapport Nations Unies bu génne ya une semaine. Mm-hmm. sur le rapport Sénégal ñu ngi 100 169 soixante neuf bu ma sur 193 manam ba fi may di wax en 2024 ñun 24 pays lañu raw ci aduna bi wa légui ñun position bobu ñu nekk ba nga xamne ñun ci borom expérience yoy ngay wax ñuy wowe ay homme d'état wax ne am expérience wax ne ñoom ñoo ñoo mën ñoo xam ñoo ci ñoo ci ñi ci donc man cette expérience là elle ne m'impressionne pas parce que c'est l'exemple type de ce qu'il ne faut pas faire xam nga boo équipe. qu'est-ce qu'il faut faire. boo jëlee équipe nga ñëw buub nga am premier match penalty nga jox Boubacar mu ñëw raté deuxième match nga am penalty jox ko mu raté troisième penalty nga jox ko mu raté nga dem quatrième match am penalty pourtant Boubacar bu ko taxawé mu né ma ëpp expérience tirer tiré penalty <laughs> c'est vrai mais il a raté tous les penalties. <laughs> ce sont des expériences d'échec <laughs> uh-huh ce sont des expériences d'échec Moi, je ne suis pas impressionné par les expériences d'échec Il y a tiré penalty mun naa tax a dugal penalty aussi ah yàgg tiré Wow. mais mais boo mais jàppal le dugaloo c'est de l'échec tu vois pas ku bees ku ñëw ku bees musul aussi mun a raté hein. non statistiquement moo ëpp chance dugal hein? mais mën na raté mais tu n'as pas la certitude que day raté alors que kële wan na statistiquement trois penalty boo ko joxee mu raté trois penalty mm-hmm. et li ma wax c'est factuel tey le Sénégal fait partie encore des vingt cinq pays les plus pauvres du monde ñi wowe am d'état nan ñoo war a yor dëkk bi ñoom la woon ñi ñuy woowee ne ñoom ñoo am expérience yi doctorat yeeg yooyu ñoom ñoo yore woon dëkk bi foofu lañ toll ñoom ñoo ne ñoo yàgg ci état yàq état ruube état waxuma Idrissa Seck en personne de je parle de de façon générale ñoom ñoo yàq tax ñun ñu toll fii loolu moo tax ñun ñu am génération boo xam ni mais on s'est dit mais plus jamais ça parce que jàng ba muy jàng